waaye nag wa man kafara ku weddi defal lu la soob baada zalika ginnaaw lii borom bi ne na fa ulaika ñooñee humul fasiqun mooy saay-saay yi ñi weddi yàlla nee na ay saay-saay lañ yàlla ne wa aqimu salaa taxawal leen julli bokk taxawal leen julli démb wax naa ko ci sama xutba moo nekkoon sabab bi dama jékk rek benn jigéen ñëw amul sax vingt quatre ans xale bi jekk dégg ndigal papaam may ko doomi rakkam papaam moo yar kooku kooku daan julli ñu may ko jékk ba jàng rek delesta julli bàyyi julli ndaw si bu ñaanee baat mbokk yi naan ko déedéet suñu papa daa gaañu te moo ko takkoon nangam nangam bi ñu leen indee li ma jur ku ci bëgg dëgg boo déglu xutba di nga dégg li ma ci wax bu ngi leen indee ñoom ñaar ñu toog moo jëkkër ñu ànd ñëw toog jëkkër ji ne ndaw si ne ma oustaz fii li ñu boole du julli dama bëgg mu may ma sama baax ma ko li ndaw si wax dëgg la mu ne waaw lu tax doo julli ma ne lay xam xaw ma lii rek la mu doon xaw ma wallaahi mais man ko yërëm na ma ne ko ñan ngay àndal mu tuddal ma ñu muy àndal voilà kii de moom bu julliwul wàcc na moom tudda ma ñu muy ànda ma tuddal ma ne ko mbokk mbaa xam nga ni ku bàyyi julli frère u nga Iblis am na ay frère de <laughs> am na ay frère Iblis lu mu bañoon a def ah bi mu bañee sujjóot lu yàlla wax aba wakaana bañ na rëy rëylu bokk ci yi man ko yawit li la tax a bañ julli abayta wastakbarta limaza la takun min al kafirin képp ku bàyyi julli frère Iblis nga xawma nak nag yéen a bokk ndey ak bàyyi xaw bokk ndax iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin yow it boo rek kunta min al kafirin waa ji yëngal bopp ma xool ma ne ko soo julluwul seen na fi ñu yara jabar foog ni jabar lañu yara yoratuñ jabar ku bayyi julli sey bañu ñu la takkaloon tas na hunna lahum wala hum yàlla nee na jigéen ñi julli daganuñ pour ñu dul julli il faut nga julli sa jabar doog laa dagan soo bàyyee julli xaraam na la laa hunna xillun lahum wala hum moo tax mbokk yàlla ñu yàlla dëgëral kon xam naa ne ñu ñu tënk foofu kon daa mel ni waxtu bi ama <laughs>